mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen euh, plateau Sen Cas seen cas nag dellu siwaat na comme ni ñu tàmmoo di ko defee rek tous les jours ci yeneen cas ci beneen thématique boo xamante ne rek dañ koy daal di waxtaanee ak yéen tey nag damay jégalu ndax xam naa ne bu ngeen déggee voix bi vous dire certainement que ni voilà ak euh, climat beeg yooyu noonu genre du jëmmoo yi moom a wàll xanaa dama koy bàyyi rek bu nuyoo ci plateau bi laataa ñu commencé. Euh, tuuma baal ma teggi ko mais garaawul jot ma koy teggi bàyyi ma bàyyi ci biir euh, <laughs> maa ngi lay nuyu Mariama di nuyu Ramatoulaye di nuyu mbokki Sénégal yi nga xam ne ñu ngi seetaan. un peu partout dans le monde à travers Equivox TV mbégte la ak contentement ñu teewaat fii ci plateau seen kaar fas yéene tegaat beneen kaar. ay ci am na solo lool kooku nag nekk di jëmoo dañuy rek daal di ànd ak tamit ki nga xamante ne moom mooy Ramatoulaye suñu jaatu kër moom na tous les jours mu ci plateau bi ànd ci ak ñu Ramatoulaye maa ngi lay nuyu. Euh, maa lay fay Mariama amati contentement partagé plateau bi ak yéen yow euh, Momo ainsi que nos nos ayca eh, am na solo loolu xanaa nag eh, ñu nuy suñu naataango boobu di Babacar tey nag eh, gis ngeen ko ñëwul ak ñun ci plateau bi mais certainement dañ ko am dala la avant la fin de la semaine incha allah. <laughs> ñu ñëwaat ba tey rek des ci li nga xamante ni mooy actualité ba tey ci loolu la ñuy des waxtaanee li nga xamante ni moom moo xew fële ca université bu Bambey gis nañ ko depuis démb mu jàppante diggante loolu noonu di étudiants yi ak takk der yi ba ñu dégg ci loo xamante ni nag ah ñaaw na trop loo xamante ni daa muñ woon di ko dégg ci diggante étudiant ak li nga xamante ni moom mooy mercredi parce que ñaari kool la yoo xamante ne nii am na différence bu baax a baax tey jii nag bu ñu demee ba ñu ne ay étudiant katu dañu kidnappé li nga xamante ne rek moom mooy takk der amaana benn wala ñaar si ñoom ngir rek demander li nga xamante ne mooy satisfaction ci loolu noonu ñoom li ñuy manifester tey nag euh, cas bi toll na foo xamante ne rek yaakaar naa ni alerte la pour li nga xamante ne moom mooy askanu Sénégal ñu war rek waxtaanee loolu ma daal di ko mooy Ramatoulaye Ramatoulaye noo bi ko déggee ah, Mariam mi ngi noonu mbir mi région plus particulièrement ci université boobu nga xamante ne mooy euh, Bambey. Mhm. gis nañ fa ay affrontement entre euh, loolu nga xamante ne mooy policiers yi avec euh, les étudiants. Mhm. lu waral loolu rek mooy décès boobu nga xamante ne moo fi am temps yi passé. Mhm. décès bi en ce moment étudiants yi lu ñu réclamer mooy autopsie bi. xam exactement ce qui s'est passé et je pense qu'ils sont ñoo ngi ci seen plein droit. c'est normal parce que. jékki-jékki rek am benn intoxication bu perturber tous les élèves de tous les étudiants de bambay mhm. ñu am ci ay difficultés ba pare ba mu mujj malheureusement am kenn ku ci ñàkk bakkanam mhm. donc c'est normal ñu réclamer lool noonu nga xamante ne mooy autopsie bi pour savoir. Mhm. ce qui s'est réellement passé. c'est mooy gën a dalal seen xel. ce qui se passe dans les universités actuellement doy na waar muy université Bambey. UCAD partout ah. Euh, il faut que ñuy bàyyi xel loolu nga xamante ne mooy étudiants yi. Mm-hmm. étudiants yi après tout ay nit lañ. donc li leen di jox ñu koy dugal seen biir. Mm-hmm. il faut que mu doon loo xamante ne dafa ànd ak hygiène. dafa mu doon lu baax. parce que yi aussi. yaay aussi mënuñoo mënuñoo lekk loo xamante ne c'est du n'importe quoi après muy in muy mu leen di indil ay euh, effets secondaires. Mm-hmm. voilà c'est ça le souci et je pense que ils ont ils le droit de réclamer loolu nga xamante ne mm-hmm. ngi noonu pour rappeler juste que ni dañu am ñaari motifs yi nga xamante ne moo taxoon ni wàcc rek ci merde bi ngir rek ñaawlu li nga xamante ne ñoom ñu ngi koy dund maanaam bu njëkk bi mooy seen boobu étudiant nga xamante ne nii ginnaaw ñàkk na bakkanam ci loo xamante ne nii dañu jàpp ni ni kat intoxication alimentaire la te fam ko jëlee mooy rek ci biir restaurant boobu noonu ci bi nekk fële ca biir université bi ñoom nañuy réclamer li nga xamante ne mooy autopsie boobu nga ni génn na ci euh, loxo médecin yi waaye ba tey yemuñu foofu ndaxte dañu ne rek section unique bi nga xamante ne ni autorité Bambey yi nekk fële ci université bi ñu ngi leen koy bëgg a exiger te ñoom loolu amaana gënalu leen mu nekkoon ñaari yu taxoon ñu doon ñaxtu ñaxtu nag ñaxtu ba nag dafa mujj rek daal di ëpp loxo parce que gis nañ lim ci jur di jëmmoo euh, fi may commencer nag euh, mooy que damay dolli ñaax askan bi wax leen ne ñun ak mm. homme de tenue duñu ay noonu ñoo bokk ndey bokk bàyyi tenue bi mm. rek moo ñu différencier donc il faut il faut que ñu ñu am matérité boobu euh, homme de tenue bi mm-hmm. xam ne moom protection askan bee ko tax a jóg mm-hmm. askan bi tamit xam ne kii protection moo tax moom muy xëy ak a gont mm-hmm. donc euh, il va falloir que loolu ñu delloo si que suñu xel yi bañu bañ jàpp ne kii noonu kii la parce que loolu mooy waral yenn jéey yi di am donc ñoom seeni droit la ñu ne. Mhm. ñoom étudiants yi te yaakaar naa li ñuy laaj war na mun a yomb yomb koo xam ne jarul muy jur jëye. Mhm. résultat la ñuy laaj nañ leen jox résultat. Mhm. donc jarul jëye mais aussi am na mbir mi foo xam ne bu fa demee ba tollu fa rek dafay tiisa tiital askan bi. parce que bu ñu demee ba ba ñu ciy dégg kip kidnapping. muy benn wala ñaar ci ay ay ay homme de tenue mm-hmm. ñu ñu def leen ko rek mbir mi dafay doy waar dama naan dama naan damay damay tiit ci réew mi fi mu toll parce que très sincèrement Sénégal baaxoowuñu loolu Sénégal xamewuñu ko loolu donc loolu moom lu ñuy ñaawlu la mm-hmm. lu ñuy ñaawlu la te et que yi mm-hmm. nañ ci gaaw àddu parce que lii bu ñu ko seetaanee fi muy jëm du neex parce que nag très sincèrement bu ñu demee ba loolu am ci léegi ñële dinañ jéem a jëli seeni i te ci loolu lañ ne mm-hmm. te su boobaa mun na weesu fii parce que étudiants yi dem nañ ba baare li nga xam ne mooy la route nationale numéro 3 mm-hmm. di taal panu def leneen ak leneen kidnappé donc ñële tamit dañuy riposter pour jëli ñi nga xam ne seen élément la wala mm-hmm. seen i élément lañ te donc loolu mun na jur jëye yoo xam ne kenn du xam fu ma yem donc autorité yi nañ ci gaaw àddu te ko aussi étudiants yi il faut aussi ñu delloo si waat xel tuuti xam ne gis nga Sénégal sunu Sénégal du Sénégalu Ablaye Wade du Sénégalu Macky Sall du Sénégalu Idi du Sénégal kii que ce soit. Mhm. mais c'est le Sénégal pour les Sénégalais. ku fi mën a ne di nga fi jóge. Mhm. Sénégal des fi donc mën nañu xeex li ñu li ñu bëgg a xeex ak conscience. Mhm. bañ a lakk. bañ a taal bañ a baare parce mm. tey boo xasee bay def violence rek mm. tey ki nga xam ne peut-être la yor mun mm. mm-hmm. ngeen ko ci gaañaale te xamoo naka la def ba am otoom mm-hmm. ki nga xam ne aussi dafa yor leneen mun ngeen ko ko yàqal te xamoo leen naka la taaba taaba

Euh, boo doo ko xam ba nga loger UCAD wala feneen ak feneen ci ay conditions yu misérables la ñuy dund à euh, lekk bi sax da ngay dem ci chambre boo xamante ne c'est plus de dix personnes à la fin doo am hygiène de vie t'as pas d'espace t'as rien euh, donc am na loo xamante ne aussi il faut que ñu ñu ñu jox leen tuuti considération à un moment donné ñëw nañ sax ba naan amatu fi amatul kàddu ci ci ci réew mi. Mhm. dañu leen war a jox considération euh, étudiants yi ce ce sont les jeunes ñun ñoo yor avenir wu suba suba donc il faut que ñu jox leen seen wàccuwaay. Mhm. il faut ñu jox leen considération boo xamante ne moo moo moo leen war en fait boo gisee manifestation yooyu di am. ba ay kidnapping di am ak yeneen ak yeneen c'est parce qu'on ne les considère pas. Mmh. mais bu fekkoon ni ñoom faj nañ seen soxla wax nañ wax nañ ni. Mmh. Euh, résultat autopsie lañ bëgg ñu jox leen ko je pense que te bu fekkee ni ils n'ont rien à craindre. Mmh. parce que ñoom boo gisee tey jii nu ba ñu bañ a génne résultat bi qu'est-ce qui se passe. on on se dit que c'est c'est c'est est que amul lu ñu dugal ci togg yi est-ce que du ay togg yu fanaan ay togg yu kii lañ leen mhm. jox ñu lekk moo tax mu indi euh, problème yooyu noonu. Mhm. donc c'est à revoir man je suis pas contre. waaw waaw non foofu dama la ciy fekk si tuuti gis nga Sénégal euh, du étudiants yi rek ñoo sonn mais ndaw ñi ci boppam dañoo sonn. très sincèrement et mbir mi wartu ñu yegg fii ay résultat autopsie la ñuy réclamer mais loolu jarul xeex jarul xuloo nañ leen ko génneel. bu nekkee euh, nee ñoom intoxication moo rek. Mm. ok nañ génn résultat yi bu nekkee loolu la ñu xam bu nekkee du loolu ñu xam parce que jarul xeex quoi. lii la ñu soxla te te am na fu mu jaar jaar na ci médecin. donc mais s'il refuse aussi c'est louche hein. en fait parce que reste à voiture mhm. refuse ou pas wala dañu nekk ci benn délai d'attente boo xamante ne nii peut ñoom amatuñu patience boobu noonu mais dañ ci war a mën a taxaw wax ko ci aussi il faut le dire tey jii ñi nga xamante ne ñoom ñu représenté suñu couleur nationale muy takk der yi mm. ak fépp fu Sénégal nekk tey ñoom ñoo ñu représenté mm. je pense que lu toll ni ay étudiants ah, nekk ay civil nekk ay citoyen comme ñoom takk der ñu nekk ay sénégalais mm. parce que ñun ñëpp benn la ah, ci ay sénégalais sénégalais lañ takk der naa yebal pour ñu dem defi seen liggéey donc je ne vois pas euh, li war a mën a tax tey jii yow nga ne da nga ñu wax sàkku si xam-xam da bëgg ñu fajal la sa soxla ba pare ngay def benn acte boo xamante ne tey jii du sa du sa cër qu'on ose dire tey jii du cëru li nga xamante moom mooy étudiant boobu noonu di jàng di kidnappé parce que looy def lu ne rek yaa ngi woon ñeneen ñi beneen voie pour que ci ñu mm. sóobu ci loolu noonu tey jii université Bambey kese nekk fi mm-hmm. Gaston Berger mi ngi di ak ay problème am Cheikh Anta moom moom mooy seen ah. moom mooy seen uh, kii nii dañ koy négocier am na yenn yoo xamante ne uh, avec le temps am na yenn yoo xamante bu ñu sonnee day jar ñu génn ngay kidnapper ay ñoo xamante ne ni ils ont eu la formation que toi tu n'as pas. Mm. tey jii xëy na on on ne souhaite pas mais affaire mën na dépasser euh, egg foo xamante ne ni. ñu ko yàlla parce que ñee bu ñëwee jël ci seen ki nga xamante ni moom mooy seen naataango takk der te ñee ñoo xamante ne ni armé wuñu. tey mm-hmm. jii lu ñu jot mën nañ ko utiliser comme arme. mën na jël euh, mën na jël mhm. euh, lu ñu ay euh, jàmm lu mhm. mën di jor pour défendre li nga xamante ne moom mooy seen bopp mhm. te loolu bu boobaa doo xam détail bi fan la yegg doo xam fan nga koy mën a natt mu nekk lu doy waa loo xamante ne tamit ñoom yaakaar naa ni ñi jiite étudiants yi war nañu ressaisir xam ne kat c'est pas comme ça la ñuy procéder pour ñu mën a fajal leen li nga xamante ne moom mooy seen soxla te ay sanctions nag dina ci am yow des sanctions faut le dire je suis d'accord parce que ñun Sénégal avant tout dëkk jàmm la lañ xam te moom la ñuy sàkku saa su mhm. donc euh, ces hommes de tenue là mhm. avant tout ce sont des citoyens mhm. avant tout parce que tey jii nii bu ñu génnee euh, au-delà de seen travail dañuy génn génn def civil et ils ont ils droit de vivre ils sont comme nous tu vois euh, amuñu benn différence ñoom seen seen seen liggéey mooy c'est c'est de veiller à l'ordre public mais boo gisee tey jii nii étudiants yi génn ci tali bi à chaque fois qu'un étudiant se manifeste il y a une cause. voilà il faut que ñuy remonter la cause lan la. Mhm. la cause mooy autopsie euh, problème euh, seen problème boobu noonu ba étudiant bi gaañu. Mhm, mhm. loolu moo waral tey seen manifestation. ak problème euh, seen session je sais pas lan tu donc tey jii nii nit ñi faut pas que ñuy focaliser wu seulement aussi sur le fait qu'ils ont kidnappé les deux hommes de tenue. peut-être ñoom c'est leur façon de de se manifester c'est leur façon de de montrer leur colère mm-hmm. comprendre nga euh, ñoom noonu rek la ñu mën a def peut-être pour ñu dégg leen mm-hmm. pour ñu dégg leen c'est c'est leur façon de se manifester mm-hmm. boo gisee ñu def la noonu certainement nekkul lu leen gënal étudiant euh, son son but c'est c'est d'apprendre nekkul euh, perturber société bi bay baare ay rue comme kii nu mu ko waxee empêcher ñi ñuy circuler créer ay circulation non. Mhm. boo gisee ñu def ko y a une cause donc man li may ñaan mooy. Mhm. nañ leen jox résultat yi mu jeex. je pense que c'est disponible bien sûr. mais Ramatoulaye. Mm. Mm. Euh, dafa am lu Mariama wax muy lu am solo. Mm. gis nga homme de tenue bi. li ko war mooy heure bu déggee coow mu teel a ardu. ñoom ci ordre la ñuy dox. te gis nga bala nga ci doon xam dara coow am fii. bu mm. ñu ñëwul dina jéggi dayo mm-hmm. léegi nag il va falloir yu ñëw mais ñoom bu ñu ñëwee nga bëgg leen sëfaat lépp day metti mm. ndax gis nga ñoom wallaahi azim ay nit lañ quoi comme ñun. Mm. des fois ñu fekkee seen yoo xam ne da nga ciy gis sax da leen di yóbbu fu sori bien vrai qu'ils la formation mais ay boroomi xol lañ comprendre nga. donc kooku bu ñu ñëwee ci yenn situation yi parce que très sincèrement. Euh, université bu Bambey la fa nekk ci nit jéggi na dayoo. donc bu ñu seetaanee ñoom ñu def lu leen saf sans que ñoom ñu ñëw pour intervenir. Mhm. mun na mun na jéggi dayoo. donc bu ñu ñëwee intervenir ñëwuñu pour xeex ak étudiants yi. Ah. ñëwuñu pour gaañ. Ah. ñëwuñu pour def lenn mais dañu ñëw pour calmer la situation. léegi nag kooku ñëw bi nga xam ne pour calmer la situation bu demee ba ngeen ngeen kidnappé ko loolu c'est grave en fait. Mhm. comprendre nga ah. il faut falloir que sénégalais yi xam gis tey ku fi amul mag wala rakk. Mm-hmm. am nga xarit homme de tenue. boo xam ne tey bu liggéeyul yéenay ànd toog di naan caay. comprendre nga donc mm-hmm. man li may bañ mooy que ñun ak ñoom ñu jàppe leen ay noonu. non non mais Sénégal non non non Sénégal moo toll mais Sénégalais non mais xam nga lu tax xam nga lu tax non non le Sénégalais le n'a pas compris que. Mm-hmm. Euh, ñu nag état ñoo am problème donc kii dafa ñëw pour pour intervenir mais mais mais sénégalais xam nga lu muy jàpp mm. que kii homme de tenue la rek non daf ma war a bàyyi par force ma def li ma def non non il va falloir que situation bu tollee fenn fi am ku ñëw koo xam ne moo koy calmer mm. parce que yow boo meree am na koo xam ne bu la ñëwul wax ak yow wala jàpp la. Mm. mun nga mer ba gaañ sa bopp. wala nga lor keneen bopp boo giifee. Mm-hmm. nga rus. Mm-hmm. donc il va falloir que ñu xam ne euh, nit ñi honnêtement nii dañ fee nekk. Mm-hmm. pour protéger les personnes. et leurs bien donc ki nga xam ne nag su baax ngoon ci loolu lay dox. donc bu ñëwee très sincèrement li ñuy njëkk du ñu egsi rek dóor ay lacrymogène. Mm. wala créer déedéet. dañuy egsi wax ak yéen. comprendre nga. Mm. mais bu ñu waxee sa compte waaw bu mm-hmm. non dañuy ñëw wax ak yéen. Mm-hmm. bu ñu ñëwee wax ak yéen nag. xam ne situation bi nii kat dafa jéggi dayo mm. mais dinañ utiliser benn moyen ba nga xam ne dina disperser perte mbooloo. en fait euh, Momo. Mm-hmm. les étudiants n'ont rien contre les hommes de tenue. certainement. ils n'ont rien contre eux au fait peut-être que parfois. léegi homme de tenue boobu ñu kidnappé léegi homme de tenue boobu ñu kidnappé. Euh, à se défendre. boobu ñu kidnappé. Mm-hmm. homme de boobu ñu kidnappé. Euh, euh, ba mu mu jëlee ci ay gaañu gaañu yooyu noonu. Mm. léegi moom moom moom est-ce que moom état bi yëg na ko. est-ce que xam nga ni homme de tenue yooyu aussi bu ñu amoon possibilité jàpp benn étudiant. Euh, euh, euh, kii ko téye ko yóbbu ko en prison ils vont le faire. est-ce que xam nga c'est parce que amuñu possibilité bi tu vois donc c'est c'est leur manière de manière de se faire entendre man je ne prends pas je n'ai rien contre les hommes de tenue bu nga bëggee ñu dégg la hommes de tenue ak gis nga ay benn gis nga la marche mm-hmm. ku ci ne am nga droit mm-hmm. mais à une manière da autorisation am nooy marché ndax comprendre nga mais am na ñoo xam ne bu ñu jugee pour ñaxtu faw ñu àddu ndax bu ñu jugee pour ñaxtu mm. bien public yi dinañ ko yàq ci ñoo xam ne Euh, xeexuñu ñu yàq ba yàqaaleel la yow ci li nga moom. Mm. est-ce que comprendre nga. donc mun nañ jóg fii képp ku am lu la métti mun nga ko ñaxtu. Mm-hmm. mais boo gisee li tax nag ñuy teel a àddu. Mm. mooy que dañuy bañ yàq-yàq yi jéggi dayo voilà là je suis d'accord moom euh, parce que mm-hmm. entre ñun ñun euh, yàq du solution parce que tey jii ne université Bambey suñ ko yàqee mooy yàqal nañ les les yàq nañ suñu avenir. Mm-hmm. yàqal nañ suñuy rakk yàqal nañ suñuy doom. parce que ñun ñi tey bu ñu fa jógee suñuy doom ñooy ñëw. ça mm. c'est certain mais bu ñu àggee situation boo xamante ne dem nañ ba euh, étudiants yi di di di di di kidnappé loolu nga xamante ne mooy homme de tenue. Mm. donc donc c'est c'est ils sont colère nañu waxante dëgg si ñàkkum bakkan la ñuy wax. dafa metti Ramatulaye ñàkk ça fait très mal. li nga wax mm. mais. Euh, la responsabilité je pense que revient à l'État ci loolu la donc euh, je pense qu'il est temps que euh, État jël li nga xamante ni moom mooy euh, matuwaay yi war mm. ci Euh, ndongo yooyu noonu mooy si ñun ci jeunes yi nga xamante ne ñu ngi ci biir université yi mm. ñu ngi ci biir école de formation yi ak yeneen ak yeneen mais je nit ko mm-hmm. jox naa sama doom da nga ko war a jàngal parce que ça ça te revient en fait kii euh, doomu réew mi la yaa ko war a jox li nga xamante ne moom mooy euh, le nécessaire ba moom mu mën a jàng ëllëg nga mën ko recruter wala mu créer benn affaire boo xamante ne tey jii moom moo ko moom ba ñeneen mën cee liggéey donc nag koy ci dans de meilleures conditions téye ko considère ko comme si c'était une membre un membre de ta famille mm. si c'était ton enfant wala si c'était boo quelqu'un boo xamante ne une personne proche de toi tey ji dama jàpp ni état bi tey ji bu ñu considéré woon noonu étudiants yi problème du am nit tamit boo koy jox luy dugg ci biiram mm. mm-hmm. da nga ko war a xool surtout asuma bi nekk sa biir kër sa doo denc sa ñam ba mu nëb ba mu xam ne lii baaxatul nga ne xaaral ma jox ko xaj bi ci biir kër gi. Mm. wala xaaral ma jox ko muus bi ci biir kër gi. wax ma la nag ñoo xamante ne ni bakkan la ñu yor comme yow. nga jël stocké loo xamante ne ni leer na ne lii ça nuit à la santé nga ne tey da nga koy jox pour lan ay étudiants lañ. Mm. pourquoi parce que ticket resto bi ñuy dagg cherul. pourquoi parce que yow yaa leen di jox ñu lekk. non non non non yaa leen demandé à que ñu ñëw ut si xam-xam. Mm. pour sa réew mm. parce que c'est pour dans l'intérêt de tout un chacun mm-hmm. tey jii mais les dans des yoo xamante ne nii tey jii day tax kat ñu ne kii même bu réussirul xëy na ci moom la wala moo bëggul woon jàng parce que jàng tamit dafa am lu mu àndal dafa laaj concentration dafa laaj bien-être pour li nga xamante ne yow yaa ngi koy sàkku ci xam-xam mm-hmm. mu mën a des ci li nga xamante ne moom mooy sa bopp xam nga euh, Mariama gis nga Sénégal mm-hmm. bala maa ñëw ci étudiants yi dama koy commencer ci élèves yu ndaw dafa may metti suma xëyee war a liggéey dajeek ñoom ñuy buuxante ci bis yi. Mhm. di am problème oto. dèjà loolu dafa metti mhm. nga yeewu benn heure bi am problème lu la indi ba ngay tardé. Mhm. ki nga xam ne nag dafa nekk à xam nañ ne yombul quoi très sincèrement. Euh, mu nekk fa. dèjà seen dañuy am problème mu logement. am problème mu lekk am problème mu leneen ak leneen. boole ci bu ñu jàngee ba ba fi nga xam ne foofu lañ yaakaar ne foofu la ñu war a reetaane. foofu lay gën a méttee ndax da ngay jug génn université. di solu utum liggéey bi Sénégal rek moo am. <laughs> Euh, nga nga nga nga nga mokkal sa jàng ci wàllum wàllum faj. Mhm. nekk benn jaaykatu café Touba. ñu ni musée wu ma ko mais loolu Sénégal rek la am. Mhm. maanaam da ngay spécialisé wu ci lii liggéey la le mhm. Sénégal rek la am il va falloir que ñu taxawu ndaw ñi parce que buñ naan. Euh, la jeunesse c' est l' avenir de demain. Mm-hmm. mais quelle jeunesse c' est une bien préparée. Mm-hmm. kooku mooy l' de demain. Mm-hmm. mais jeunesse bi nga xam ne tey da nga ko soxorloo. jeunesse bi nga xam ne tey da nga ko defar rancunier. donc jeunesse boobu mënul nekk avenir de demain. sinon bu ko nekkee dëkk bi day metti il va falloir que état aussi mu jàppale ndaw ñi. surtout parce que affaire yi li may wax rek. du ay xëy xaar élection ñëw. nga may leen ay mille francs ay 2000 francs non gis nga ni boo ko bëggee jàppale danga koy fekk ca la mu ne. nga mm-hmm. dimbale ko ci. Mm-hmm. nit ñi dañoo bàyyi seeni dëkk seeni kër. Mm-hmm. ñëw ci benn daara muy université feneen. donc daje fa donc condition yi lekk gi na normal. logement yi jaar yoon léegi li ci des ñoom la. c'est tout ce qu'on demande. donc loolu yaakaar naa boo ko defalee nit xeex bi dootul am ah. gis nga dootul am. gis nga Mariama euh, tubaab. raw lañ te di je c'est c'est désolant c'est mm. c'est difficile à dire mais dañ ñuy raw xam nga lu tax déjà euh, gis nga nit ki lépp looy def. Mm-hmm. si tu es à l'aise si tu as le confort c'est confortable rek tu le ça ça vient naturellement. Mm-hmm. ñoom ñoo ñu ëpp hygiène de vie de un. Euh, mm-hmm. ñoom tout ils sont ils sont imagine leurs étudiants et tout on te tellement à que quand tu es dans la classe. la réflexion ça ça vient naturellement. Mmh. mais imagine table banc yi tey boo demee ci région yi ba tey am na ñoo xamante ne si ay abri provisoire la ñuy jàng. Mhm. imagine am xale yoo xamante ne quatre par table la ñuy toog mi ngi am ba tey quatre et c'est désolant ça fait mal. Mmh. Euh, après euh, tout ça si tu réussis pas ils te disent voilà on a mis toutes <laughs> jàng ak affaire yoonu. Mhm. gis nga jàng aussi dafa laaj condition. Mhm. munoo toog n'importe où ñu naan la na jàng. temps même pas la tête euh, là euh, nga dem tëdd ci université nga dem tëdd ci chambre boo xamante ne y a dix personnes quinze personnes le mm-hmm. lendemain nga war a jàngi imagine tu te réveilles le matin ta ta ta ta ta voilà di xaarante ci toilette yi rang bi tu comprends ce que ça fait ça fait très mal ça fait très mal nañ delloo étudiants yi loolu nga xamante ne nañ leen respecté au fait. Mhm. au Sénégal on il ne respecte pas les étudiants c'est ça le truc c'est c'est le mot à dire malheureusement il ne respecte pas les étudiants joxuñu leen lu leen war ku dem ba. Euh, man je me dis que ñi ñuy liggéey ci resto boobu yëpp ah war nañ leen war nañ leen dàkk mbaa ñu am nu ñu def ak ñoom. Ah ba ah oui. qu'on le dise war nañ leen dàkk mbaa ñu am nu ñu def ak ñoom parce que. Mhm. lu lu lu lu lu lu yóbbu bakkan donc ça ça devient grave. Mhm. ñoom ñëpp la ñu war a woo ce qui ce qui était présente euh, pendant la semaine mm-hmm. wala voilà, je sais pas si jour ji bi ñu convoqué leen am nañu def ak ñoom parce que ça doit pas être aussi facile que ça pensez à leurs parents parents yoo ñoo xamante ne ñoom ñoo mettre au monde doom jooju am yaakaar ci doom ji investir ci moom. Mm-hmm. yar ko ba mu màgg ba mu ba mu leer la ni sa doom ak université ah sa doom nag bu demee université yaakaar bi ngay njëkk am moom mooy ci moom mooy. Mm-hmm. mu réussir ba suba mu mun laa njëriñ. Mm-hmm. un beau jour euh, benn benn message yi nga jot ko comme ça. wala une personne lambda ñëw ba ci yow rek nee la diw gaañu la mais c'est facile. en tout cas trop facile. je ne suis pas d'accord ñu ñu euh. def tout Mm. pour euh, xool ce qui s'est passé réellement. et ça ne doit pas mm-hmm. parfaitement raison il faut le préciser aussi on dit euh, euh, présumé la ñuy wax pour le moment rien ne nous prouve que l'intoxication foofu la jóge ci li nga xamante moom mooy UCAD bi mais tey jii autopsie boobu noonu moom mooy preuve bi wane ni ndax réellement li ñuy wax ni intoxication moom moo faat bakkan kooku étudiant boobu noonu tey jii moom mooy firndeel rek ba tax na bu yaakaar naa ne bu ñëwee ak résultat bu ñëwee ñoom tey jii ku nekk di nga mën a xam fi nga situé wu et négligence li nga xamante ne moom mooy sanction wax nga ko léegi maanaam bu fekkee ni si c'est avéré dañu war a sanctionné ñi nga xamante ne si seulement foofu la ñi dañu a sanctionné ñi nga ma ñëw di jëm moom mais mm-hmm. yaakaar naa ni balaa ñu leen di sanctionné di il va il va falloir ñu remonter encore plus haut parce que ñooñu tey jii muy mel ni nga rek rek euh, jël sa benn euh, toggukat mu mm-hmm. ñëw toggal la ci la so mm-hmm. yow yaa def sa euh, ravitaillement dem Auchan jënd sa ravitaillement dem marché jënd sa ravitaillement ñëw tegal ko ki nga xamante ne moom mooy bon moom toogu am pour jox waa kër gi ñu lekk mm. tey jii bu nekkee sanction dafay am yaakaar naa va falloir que qu'on remonte encore plus haut commencer sanction bi foofu noonu wàcc nag ba ci suuf sanction bëriwul lu muy am Sénégal parce que si on prend le cas le cas bi amoon clinique Madeleine côté santé mm. avec le bébé bi nga xamante ne par négligence ba gis na la ci xew mais malheureusement poursuite yi taxul ñu koy wax parce que gisuñu si sanction yoo xamante ne tey jii tax na parents ni ah man kat lii nii kat gis naa ni sanctionné nañ ki ko defoon non non non du mujj fenn en général du mujj fenn te c'est ce qui est vraiment déplorable. Mariam Sénégal bi fi nekk moo tax ba duñ avancé. Mhm. mais c'est ça euh, euh, exemple yi bëri na. Mhm. problème yi bëri na fi mais maslaa bu ñuy dawal seen biir ba bàyyi affaire bi ça passe. Mhm. beneen problème ñëw ça passe. mais tant qu'on commence pas à régler les choses duñu mës a avancer. Euh, genre situation bi nga wax noonu bébé boobu. Mhm. bu ñu négligé woon ba mu gaañ. Mhm. tu vois ils ont ils ont euh, classé nañ dossier bi. Mhm. Euh, mujjiwul fenn si si lu ñu xam ñun. tu vois donc beneen aussi keneen aussi mooy ñëw defaat les mêmes erreurs. erreurs ça passe keneen ça passe. Sénégal masala bu ñu am ne masala baax na de donte baax na mais am na situation yoo xamante ne faut punir la personne faut punir pour Euh, loolu exemple lay doon pour ñoon nga xamante ne ñoo ngi liggéey. Mhm. dans le même cadre que que que kooku noonu. Mhm. ak yeneen ak yeneen. tu mhm. comprends. il faut que ñuy punir képp koo xamante ne def nga loo xamante ne naka sudul noonu la tu mérites une punition. nga regle boobaa day tax ba ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi sa ginnaaw dañuy éviter def genre yooyu noonu. Eh, xam nga xam nga Sénégal mooy dëkk boo xam ne. Euh, boo xasee ba néew doole amoo kàddu. ak loo am dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yàpp bi chaque jour sa kaw lay dal. malheureusement. Sénégal dëkk boobu lañ toll. Mhm. et que man laa question que je me pose mooy comme que étudiants yi ñoom ñu ngi réclamer naan résultat autopsie bi. Mhm. parce que nee nañ intoxication ko rey. Mhm. léegi bu résultat bi génnee wax leneen est que ñoom dinañ mën a nangu loolu xaw ma na. mais loolu aussi question la est-ce que tey bu résultat bi génnee tey. wax leneen. est-ce que ñoom dinañ mën a nangu loolu. et que ça serait très facile pour les jeux. non dama ne. Mhm. est-ce que résultat bi tey bu génnee wax ne leneen moo am. Mhm. mu nekk dëgg est-ce que dinañ nangu est-ce que dinañ dékku loolu. donc euh, aussi question la. Mhm. parce que comme que ñoom def nañ seen jugement wala intoxication ko rey. donc est-ce que tey bu résultat xasee génn. wax leneen est-ce que. <laughs> dinañ ko dégg. Ah, en tout mu mi ngi noonu xam naa nag temps bi rek daf ñu daal di daj euh, dab ñu daal di rek jeexalee foofu di je moom a bàyyi la rapidement nga tàggatoo. Euh, li ma lenn la rek mooy que gis nga ndaw boo tolloo ci sàkkum xam-xam am yar boole ci teggin ndax olof Njaay nee na ku amul teggin lu baax doo ko teggi mukk te lu bon lu ñëw aussi du la teggi ndab na bu bëggee def ñam day set. waaye ndab saa bu tilimee ñam buy jëriñ du ca dugg maa ngi leen di jox rendez-vous euh, suba incha allah ci beneen. E Ka. ayca am na solo lool ñu ngi lay jaajëfal ko kon nekkoon di jëmoo ma bàyyi la ak Ramatoulaye mu tàggatoo ak suñu mbokk internet yi. Euh, mi noonu Mariam waxtaan bi am na solo. Mhm. et vraiment c' est c' est écœurant s' est passé à l'université de mhm. Bambey. Mhm. que la terre lui soit légère. mooy les gars qui qui qui, qui perdent euh, vie am euh, c' est c' est affaire éducation moom bu buñ ci waxee day metti. parce que université dafa doon koo xamante ne ku nekk da ngay am foo yaroo da am foo màggee dafa. lu ñu duggal sa bopp bi daam ñu la yaree nga ñëw mhm. dajeek ay nit ñu bëri donc mhm. façon jikko bu nekk di nga ko fa gis mhm. malheureusement c'est ça mais ku nekk na jéem a canaliser boppam jéem a contrôler ay ay ay sentiments jéem a xam nu muy doxalee et puis euh, je pense que ça va bien se passer et puis que que justice soit faite hein que mm -hmm. justice soit pour euh, pour le gars qui qui a perdu sa vie su ko defee ñu jox leen rendez-vous demain incha allah. Mm -hmm. heure Aïcha kooku nañ nekkoon euh, Ramatoulaye ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal euh, ki nga xamante ne aussi moom mooy DJ Mo pour vous dire juste que l'éducation du Sénégal va mal nañ ko wax nag looloo fi nekk xanaa rek euh, di wax ni ñooñu noonu nga xamante ne ñoom ñoo ngi ci mbir mi actuellement lu ci mel ni état lu ci mel ni takk der yi nañu def rek ba lépp dellusiwaat ci yoon te nag du ànd ak benn coow du ànd ak benn violence ñun nag ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje suba incha allah.